asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe fi teew yépp maa ngi leen di nuyu ci turu taalibe yi nekk ci dëkk bi bépp te di leen siyaare tey bég ci bis bi dellu siwaat fii ci Cees ngeen yóbbuwaat ko nu gën a na mu demee woon kon loole gannaaw bu leen nuyoo ñu ngi leen ci sant bu baax di nuyu nag kilifa yi nga xam ne daanañ fi teew teew siwaat nañ fi sëriñ Moustapha Sourang mi ngi nii ku ne xam na li mu doon ci yoon wi borom yoon bi maamam la muy Sëriñ Tuuba loolee rek doy na ab garaat ci àdduna ak ci àllaaxira loolee mu teg ko fee laxasaayu ànd ak yéen ci bis bi jox leen këram jox leen boppam yëkkati lu ko leew doom di ko ci def kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu taalibe yépp ci li nga xam ne toggoo nga ko daayira xasaayid yi na xam ne am na lu ma la déeyoon maag xam ne sa boroom du maye di nong mukk mu yeex mu gaaw ñoo ci bokk yam waaye du maye nangu kon nun ñépp nañu gën a rafet njort ci yow gën laa jàppaatit xam li nga doon ci sëñ Tuuba xamit kan mooy sëñ Tuuba moo tax nu rafet njort bu baax a baax ne dañ la fee andi te sa liggéey matagul te faaw nga matal ko bu loolu wéyee maa ngi nuyu sa bokk yi nga xam ne yi fekk nga leen fi am na ci ñoo xam ne man damaa daal di tëb jaar ci tur yi am na ci ñoo xam ne it xel mi daa gàtt lool waaye ku mel ni sëñ Mouhamadou lemin mbakke mi ngi fi teew ak yeneen i bokk yoo xam ne yi teew nañ fi bu ma mënta jaar ci seeni turit teew nañ fi di nuyu waa daayira xasaayid yi nga xam ne tey diir bu yàgg ngi ngeen di fi tase di jàng xasaayid yi Sëriñ Tuubaa yi muy sëriñ Ibrahima Guèye mi ak sëriñ Xaadim Fall mi ak mboolem ñi ànd ak yéen ba tey mu agsi fii na ngeen xam ne xasaayiti sëriñ Tuuba yi léppam ci la ne koy jàng yaa ngi mel ni fooy bañ looy denc muy wurus wu tege fi barab te nangoo dara laal ko waxtu wet ngay ngay fomp jàng xasaayid noonu la mel ci yoon wi boo dee jàng boo dee jàng xasaayid yi ci yoon wi it jëmmi yoon wi ku ci nekk xasida yi day la dalay raxas sa xol ndegam sëñ Tuubaa nga ci xasida yi dalay raxas ba nga seet wecc kon loolu liggéey la bu rëy boo xam ne yéen a ngi koy liggéeyal tarixatul muridiya te na ngeen ko jëmee kanam bu baax la ca des ku bëgg ay martaba sa digganteeg sabam del jàngi xasaayid yafooqu taalifi ya sayqa tarbiya bila tafaaxurin ba sayqa tarqiya moo ko waxat boppam sama xasida yi moo gën a kawe sariyab tarbiya mooy tàgga ci yoon sama xasaayit yi moo gën a kawe sëriñu tarxiya buy àggale nit ci yàlla sama xasida yi moo ca gën a gaaw kon boo gisee ab taali bi dugg xalwatu baax la def waaye sëñ Tuubaa gën a gaaw xalwatu boo yoree xasida yi di ko jàng waaye boo dee jàng xasaay di bàyyee sa bopp ak sëriñ la gën ci yow da nga ca jot bala la ko jax jox nag dana la dàqal la gënu ci yow te tàggook la gënu ci yow nag moo gën lépp ndax luñ la man di jox te mënoo ko yor kon lu gënut mi ngi ci yow kon na ngeen rafet njort bu baax ci njàng mi ngeen di jàng xasida yi waxtu wu ne te jëmmi Sëriñ Tuubaa rek tax ngeen di ko jàng na ngeen rafet njort sëñ bi kat lu ne wax na ko ku bëgg a tàggoog seytaane del jàng xasaayid yi ku bëgg am yàlla del jàng xasaayid yi ku bëgg ngërëmam del jàng ku bëgg ku bëgg a mucc ci àdduna del jàng xasaayid yi ku bëgg a mucc ci seytaane del jàng xasaayid yi xasaayid yi moom ndox la moo xam ne mii lépp lu taq da koy póot ci nit ki lu man di doon dana ko póot ma di leen di xamal ne it am póot faw mu metti ci ki ñu koy fóotal ndax sa sër yépp bu tilimee buñ lay fóotal yaramu neen ngay def dañ koy weer ba mu wow ñu doon la ko solalaat balañ la ko solalaat man ngaa jàpp ne dañoo fab say yére waaye yaa ko tilimaloon ñu di la ko defaral dañ la koy defaral rek waaye bu defaroo danga xam ne ya eh, yàq kon nag na ngeen góor góorlu bu baax a baax te jëmee ko kanam àdduna yi nee leen ko teg fee bañ ko cee sàkku ndax borom ba mu koy wut sàkkuwul woon àdduna ba saa borom de wàcce lii ca moom sa sàkkuwul àdduna jëmmi boppam jala sàkku woon amul loo xam ne lii xam nañ ne sëñ Tuubaa bëggoon na ko ci àdduna xamee su ko lum joteeg àdduna yit xamee su ko mboolem ko amoon àdduna ci jamonoom àggoo woon ci moom dugg sa kër duggoo këram muy bóor muy ludul bóor képp koo xam ne rek àdduna ganese na la sëñ Tuubaa tàggoon na ak yow yow it tàggoo nga ak sëñ Tuubaa loolee it mooy doxin bi nga xam ne mooy doxinu sëñ Tuubaa képp ku laxasaay nag ci ci xasaayit yi bëgg bëgg xasida yi nag yëkkati la ca kaw na sëñ bi doxe woon doxe ko fowu nga am loo dàq ba mu tàggoog yow bu dee àdduna dana la ca jox lu la doy waaye du la ca jox mukk lu la yàq ndax lu la yàq amul njariñ kon na ngeen xam ne li ngeen yorit li muy rëy rëy rëy am na lu mu nangu am na lu mu nanguwut muy dox bu jëm ci yàlla nanguwu daagu te dangay ngay ñeme xiif dangay ñeme aw mar dangay bañ a nelaw waaye koo xam ne boo xiifee tëdd doo dem koo xam ne boo maree yooxu doo dem koo xam ne boo doxee tuuti tayel tëdd nelaw doo dem dem koy dem ci yàlla da nga tàggoo jikko yooye kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax te gën a xam li ngeen di yor ba na ngeen di xamee na ngeen na ngeen di àggee ci yàlla na ngeen góor góorgóorlu dem ngi nag ku ne yaa koy defal sa bopp ku ne yaa koy defal sa bopp sëriñ bi ñoom àndaloon jamono ñoo ko fekk si woon ñëpp lam nekkoon ba mu leen ca naqee ñoom ñëpp àgg nañ ca yàlla loola nag ci sëñ bi lan lan mën a wax ne ca la yem benn nun nun doxewut ñu denu jox jox nu ba noppi te liggéeyunu bari na ca noonu ndax bu fekkee ne dangaa bëgg dangaa bëgg a peeñ doo déggoog sëñ Touba te xasida yi ñooy sëñ Touba ndax moom fi mu ne boo ko gisee rek di nga xam ne boo gisee alxuraan gis nga sa borom boo gisee xasida yi gis nga sëñ Touba néewuma ñooyam waaye it dañoo wax ne Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu mas naa toog fi sëñ bi am ku yor ay xasida génne fi sëñ bi mu ne ko loo mu ne ko xasida yu sëñ bi de mu ne tekk baag mu ne ko ah moo ko alxuraan de lépp jóge fa yàlla te lee mujj ñëw waaw ne mu seere ko de kon nag lu mat a jàpp la ndax kookee lu mu seere ci sunu borom ñëpp day jàpp xam ne loola am na kon nag nanu góorgóorlu bu baax a baax te gën a settantal li nu nekk gën koo jàpp te wattandi ko lu bari loolee ku ko ko ko def da gis njariñal xasaayid yi jàng gi dem képp nag di gestoo defe ne mi ngi ñëw du ñëw du ñëwee noonu mukk na muy ñëwee faw daanaka bakkan bakkan sa bakkan dana root ndax lu yom ndax borom ba mu koy def xam ngeen fi mu jaaroon lu ne defees na ko ko wër nañ ne takk nañ ko ako garab fetal ko wóor nañ ne sànni nañ ko ci géej wóor nañ gas nañ ko suul wóor nañ ne sànni nañ ko ci fuur lépp muy mujj ana lu ko musal sama borom mi nga xam ne boolewu ko dara te mu jàpp ne dara mënu koo dara mënu koo wàññi ku dul suñ borom dara mënu koo jariñ lu dul suñ borom tawxiid boobee nga xamee amoon na ko ci suñ borom nag taw tawxid boobee nun nii ku nekk na koy jéemaroo ci sëriñ Tuuba jéem a te it nu am loo xam ne nun ñëpp war nañ koo am mooy sëñ bi nga xam ne dafa ñëw di kéemaan sun boroom jóge ci asamaan wa ñëw jóge ca sun boroom ñëw def lu kenn mësta def noo koy wutal ay ay ay nawle yu bare bare bari ci biir këram biir këram laa wax feneen sans yoon nekku ci waaye bu fekkee ne kenn képp képp képp la nun ñëpp nu xam ne kenn la te moo ne jariñ nun ñëpp nu laxasaay ne ko yewa lin bëgg danañ ko am adduna danañ ko am àllaaxira waaye bu fekkee ne nag lu nu laxasaayu laxasaayu nag keneen la nuy tàcc duñ ko tàcc du yomb leen ko bëggee ndax ba moom ba mu koy wut rasulaay rek rasulaay rek la la la la tàcc woon keneen faalewu ko rasulullah yàlla rasulullah muy allah muhammad ca la nekkoon soxlawul leneen ba mu demee ba nga xam ne sa borom rasulullah ko jëkk jëkk jëkk jëkk a fay ndax ba mu ne bërit àgg ci àgg ci jafe àgg ci rasulullah jafe na lool àgg ci sun borom jëkk gën ko jafe te ba mu ne bërit saa borom da ko ne demal demal ci muhammad mi dallani allah ala muhammadi demal toppi ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko ba rasulaay lam bëggoon lépp lépp sëñ Tuubaa def ko mu delloowaat ko borom wa xaada ni muhammadun li samadi ba mu ko delloo boromam nag lees ki mu jaxam dara sëñ Tuubaa ngoog kookee nag ku koy liggéeyal faw ngay laaj lu war ci liggéey bi du ceegee nag rek nga jënd sa téereb xasaayit dem fee tàmbali di yëkkatee ka kaw ak di jeeneer ba yàgg ngay yooxoo ko daanu mel ni dangaa gis sëñ Tuubaa mel ni dangaa gis leer teel na faw nga tumuranke moom day ba mu ne lii ci yàlla la bàyyi ko muy la waxul maxfuus loolee kenn nattabliwul ne ba mu ko am dañ na lu mburu ma dajut ca taal ba ndax taal bi day lakk mburu mi mburu mi lakk ni moom waaye moom de ba ko taal ba lakkee lëkkut kooki kooki mooy sëriñ bi nan ko joxaat cér bi bul ne yàlla la bul ne yonent bi la bu ca yoon nekk jàppe ko li mu doon ana lu mu doon digganteem ak rasulaay nee na kulliyati mujizatun taaqarat may kéemaanuk rasulaay gi mujj a ñëw kon kéemaan gi bàyyi ko rasulaay bu ko gëstu toppal لقى مغرب صلاه بانا لكل من له ولايه كوني لخالق البرايا اي كيف كوي وليو كو ام بن سيرو تي خم غن مان كي مان سان بوروم لا نان باي سون بوروم ما كي مان باي رسول الله كي مان لولي بونو كو دافي تامبلي كو جو اقام واي كو بوغ ملني موم تامبلي غا تارد وليو مك وكيمانه وغني دني وارني قلب سمان لا ويسير صعد أبي نينا حلف السمان لا يأتين بمثله حنسد يمينك يا سمان فكفري جمانا دي جينا نينا دينا عندي كميلات نسرين توبا نينا كو تينونا تينو موي لمن تعمل كون دمال كفارة سنجين كميل نسرين توبا دوتوام لولي سيخ سعد أبي سيرنا كو تينو توبا kon ku mel nii boo ko joxee sa bopp jéem a xam na àndeek moom te rik bu nu waaba jiiba waaba jiiba mooy jox sa nit sa sa jëmm ji nga jox ko nit ba noppi ne ko yaa gën ñëpp tasewaate ci sëñ Tuubaa nga jàpp ne sëñ Tuubaa gën ñëpp loolu day wax koy topp topp ko sëñ Tuba lu lu mbokk mu ne topp topp toppal deret ja deret ja loo loo loo defal deret ja defal nga ko borom boroom deret moom loo ko defal defal na ko borom ba tax na yow bul xool ku tege ci yoon bul xool ku tegewul ci yoon yow seetal yoon yoon wi nga war a tege yow tege ca sa digganteeg sëñ Tuba ka nga féeteel it liggéeyal ko ngir jëmmi sëñ Tuba waaye na nga xam ne it du sëñ Tuba loolu moom na ko ñëpp ñëpp xam kuy sëñ Tuba waaw ku yor dereti sëñ Tuubaa nag moo la gën gën nañ ci dereti sëñ Tuubaa loolu na ko ñépp nangu waaye nag deret de doo ko yor ba noppi ne may sëñ Tuubaa déedéet géntu gi gën a woyof ñépp a ngi gént waaye du loola sëñ Tuubaa moom ba ne bëreet jëm ci yàlla kenn da ko fa fekkut ku ko gën a nangu it yaa gën ci mboolem sëriñ si sëriñ bu gën a nangu loola yaa ci gën nan xamne ku ne gis ka njëriñal señ tuba talibé yi gis nañ ko bokki boppam yi gis nañ ko njobootu bopam gi gis nañ ko am deet ku ne gis na njëriñal señ tuba lo bëgg ci talibé yi talibé yi defal la ana ko defar talibé khadima xaadima xaadimal Mustafa moy moy defar kat bu mag bi li feeg nité ngi bañ ragala wax lolu du talibé li feeg ab serigne ci njobootam ñi ngi nangu ku leen di tagg bàyyi sëñ Tuuba tegeeguñ ci bu yoon am déet faw nga nangu ku la taggal sa maam sa baay sa mbokk loola nga nga daanu ca moo gën dàq kooka ndax mooy mel naa ni moom déet man sakke fii saalika fal ju jarribi wa man ju jarrib ba bi taqarubi da ko waxul nee na fi ma jaar ba ba dellu ku ci am lu muy sikki sàkk na dem seeti ba xam dana dellu seem di kooku sëñ sëriñ Tuubaa ko wax kon du kenn du kenn bu fa yóbbu kenn it bu fa yóbbu kenn deret ji nag ku ko yor teralal deret ji moom ku ko yor teral waaye borom deret ji na xam ne kay boroom mooy kee kon ku ne nay gën a bët bu set nay gën a jàng yoon wi te gën a xam yoon wi njàng mi dana metti ba ci lii may wax dana am lu naqari garab gi dañ ko bokkut ci lenn dëgg la nit dana tàggoog sagoom waaye dañ garab nga ta tàggoog sagoom a ko indi te moom lay gaañ am déet waaye sëriñ boo xamee ne bii gàddul ko kuur ak dóoral ko sa bopp rek dóoral ko bopp nga defee ne moom sa war a terale ab sëriñ doo teral sa sëriñ ab coono képp ko yëndi ab sëriñ da ngay dem futti ku liggéey di ko jox addiya waye teru ko dur dur saw yaram bam ke kii nga dem tedd fe du tax agn ba neex mukk ci addu ah kon nak li gën muy futtiku liggeyal sa serigne loolu nam man di def boko liggeyale ya yaa liggeyal serigne touba bu mané ma nga lay defal bu mënul serigne touba defal la lol mom lañu wara japp kon nañu gorlu bu baax baax tege fi nga xane war nañ fa tay njangam xasaay yi na ngeen na ngeen ci góorgóorlu waye lu ngeen ci gor góorlu beut bu sen na ngeen di na ngeen di door sen bop ci dun dara bu len jam bu len bu len bu len jang bané no gën nit ñi koo ko def yàqule ko def di yàqule ba saa señ Tuba ba li wacce ci mom ndax bind na fenn ne ma len gën bindut fenn ne ma len gën te booba wóor na ko ni li sun borom di def ci moom menn mbindeef mu mu def ci ca loola ci ci ci ci moom defu ko ca kooka ndax li mu defal sun borom defal ko xaadimu rasul defal ko julli defal ko mbooleem ko naa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sëñ Tuubaa defal na loo xam ne lii ñi baax bari nañu lool waaye raw na leen ca loola boobee nga xam ne amul ndox mu mu naan amul ñam bu mu mos amul néeg bu muy dugg amul séer bu muy teg ci yaramam ku jaarul foofu ku jaarul foofu yées nga kooka muy sëriñ bi ñu baal ma àq it ndax jamono ji nu nekk wax baaxu nit day mel ni ku kenn ngoo tut waaye sëñ bi de fi mu jaar ku ko seetaan ku ko seet ci xel te xooloo ko ci noonoo xooloo ko ci bañ xooloo ko ci dara danga xam ne waajaa ngi kon nag na ngeen lu nekk ci lii bu mu ànd ak puukarewu nag ndax kii kat ba ko tubaab yi yoree lu ne def nañ ko te at yu bari la te booba yor na loo xam ne lii bu ko doon def àdduna yu tukki waaye amu ca soxla ku ko roy ci bañ ko summee takk ko garab la woo fukki daan naa nàngam ne leen nañ ko fetal bu ndigali ñëwee rasulaay fekk ko fa ne ko loo bëgg mu ne ko liggéeyal la keral la moom rasulaay bu ko ne woon mucc ñu xam ne ko ragal a ngi nii bu ko ne woon mucc ñu xam ne fa mu war a teg rasulaay tegu ko fa waaye néewu ko mucc néewu ko dara da ko ne liggéeyal la kàddu googu lu mu gàtt gàtt ndeem xam ngeen mboolem lu ñuy waaru kàddu googu ci gën a rëy fukk ak ñett te duñu moy mukk feetal yi neen yii rasulaay feeñu ne la loo bëgg te xam ne mën na laa musal mu ne ko liggéeyal la loolu ci la ñuy xool ni ko amul moroom a ngi nii li ci dess nak yàlla mi amul moroom waye gis nañu ay diine yu ko wutal moroom ñi ne nañ amna doom ñi ne nañ amna soono ñi ne nee na dana lekk dana nan lu ne tek nañ ko ci wax nañ ko ci sunu borom alxuraan a ñëw weddi lépp waaye la muy weddi weddi taxut ñenn ña bàll njàppoon alxuraan la daal di dem ekkisi ko ci lu baree bari alxuraan moom di alxuraan rek lii nga xam ne nag mooy li wàcc fii ci senegaal muy Sëriñ Tuuba man day yetti yëf saa yàlla mooy sa borom rasulaay mooy kii ñu yónni Sëriñ mooy ki ñu xamul boo ko jàppee loolu moom xam ko waaye bu ko jéem a xam bu ko jéem a xam ndax boo ko boo ko jéemee xam mën ngaa toxal am ak sun borom nga te mën na laa bañ a jig Sëriñ Tuubaa moom ko naqaree xam la waaye jàppal rek jàppal jàppal rek fa yóbbu kenn nag koo fa yóbbu yaa tooñ sa bopp man nga am taalibe bu la romb ak sa gañ yi ne la yaa yàlla yàlla nga defe ne yaa ca ne nekku ca def benn murit léegi bu nanguwul ko ko jox ay karaama amul murit boo joxi karaama mu nangu fa dana la tontu mel ni xam nga ne day gis yo mu tàmbali de la netali ay gént te gént moy li ci gëna ñak solo ñeppay mbam yi sax dañuy gént da la señ bi mom boko bëgge xol xol ko ci diggam ak tuba bi bo bëgge xam kan moy señ tuba xol ko diggam ak tuba bi boo bëggee kan mooy Sëriñ Tuubaa xool ko ci digganteem ak jullit ñi senegal gi kenn dégg na benn jullit Sëriñ Tuubaa teg ci teram ba dara dégg nañu kenn koo xam ne Sëriñ Tuubaa mën naa jokkoo ak moom te jokkoowut ak moom Sëriñ Tuubaa ku liggéeyal ñépp la liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonent liggéey na mbooleem ko naa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah liggéeyal na la Sëriñ Tuubaa foofu la nekkoon nun ñépp naan mu maase takkuwaat te laxasoo waaye te na ko yow demul fenn moo bindi ci xaatimatul munajat ne ñeenti téeméeri at dinaa ko fele te xam ne téeméeri at bi jeexagut kon ñetti téeméeri at a ngi fi yoo xam ne demagut kon nanu góorgóorlu bu baax a baax te te laxasaayaat bu baax a baax ku ney naqeeb boppam ku ney naqeeb boppam bu dara rëy rëy rëy rëy ba boo toogoon ak moom mu ne la def naa la tey jii ngay borom jamono fa nga jaaroon ba mu ko jikko ja nga yoroon ba nga doy nga doy ko jëmale ko kanam waaye bul bul net bul bëgg a wane nit ñi may seen kilifa ci yàlla sa borom lum la may tegal fee te dolli sa njaam sa diggante ak moom koo gis muy bajant ci ak may du yalla yalla kon nak kaddu yi doyna na ba wenen waxtu ñu ngi leen di sant te di leen gërëm bu baaxa baax te ngeen rafet njort te ngeen rafet njort bu baax ci seen bop na ngeen xamne ñu magña fañu am lañu am yeena nga fay jaar rik na ngeen jëm kanam te bu len jëm gannaaw ana luy jëm gannaaw gi bu leen ñi ñuy tagga tagga tagg ba ngeen geesu nit ñi nit ñi mëna a luñ kenn dara de mëna a luñ kenn dara ana ko manal yalla yalla momé bo fassé lepp japp sa borom légui nga xam kaname yi nag luy jëm ci yalla mi ngi melni ni ku jëm ci dëkk faaw nga laaju yoon faaw nga laaju yoon ñu ne la mi ngi nii la yoon wi ngay laaj mu àggale ci yàlla nag mooy ab sëriñ faaw nga laaj faaw nga am sëriñ bu la teg ci ci yoon li nga xam ne nit ñaa ngi ma ciy mere waaye dëgg rekk la dëgg rekk ci nanu xam ne faw sa borom lam bindoon Sëriñ Tuubaa nee ne bind lam wax ci alxuraan bindul ku ko jaral farloo la jële na naa lu yu caaxaane caaxaane waaye martaba bala koo takkal kenn dangaa def la ko neex li feeg defoo la ko neex du la takkal dara adduna si yi nga xam ne defe ne ne kum kum ko jox am nga ko kera nga ko sori bon te moom dadul maye àdduna ndax àdduna lu yàq nit rekk la te du ko may nit mukk de du ko mayee mukk mukk mukk amul kenn koo xam ne sëñ moo ko may alal ja mu yor ñi ngi wadd nag léegi di ko wax waaye boo demee ci téere lim bind da xam ne bokkut ak li nit ñi wax mës sa soxlaal kenn dara mës sa loo ko andilit bu lewee bu dee mos dara ca loola la koy mos bu lewul du ko jox nit da koy gas suuf kooku ma doon sëñ Tuuba maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi ñaan ngeen di ngeen ñaanal ma sa borom gën noo wéral gën nu fee bàyyi ba liggéey bi nga xam ne bëgg nañ ko koo liggéeyal <coughs> muy nun taali bi yépp tege ci aw yoon baram munu ëllëg bañ a jafe moom lu mu bëgg ci boromam dana ko am waaye bëgg goo xam ne bala nga ko balañ la ko jox mu jafe nag laay bañ dama bëggoon noonu ñëpp nuy kër kër yi ba jege jege li mu bëgg ba du sonn waaw ba du sonn rek loolu buñ ko defee rek mucc te loolu yi dara gënu càkkawee nag liggéeyam bi liggéeyam bi ndax lenn loo seet nit ko yor waye waye mom yoru ko xasi day le kenn yoru moko yoral bopam moko yoral bopam mbolo bi am na lu ñoon sàkku ma leeral ko mbolo mi liñ doon sakku nga may leen saa bu dajee ci jotaay bi ndax daaw dañ la bëggone a addiya nga tek ci aw yoon daal ni amna daara ji ci alxuraan ja ja ca këram lu ngeen di def def leen ko fofu waaye man bu leen ma laajal dara mbooloom mi am àddi ju njëkkati woon dénk ma ko loolu yéene ci képp ku ne fii joxuñu ko ko moom mii ca daara yi alxuraanam ja ca kër gee nga xam ne moom daara yi sëñ Tuubaa la ñoo bëgg kenn ku ci nekk do jàppaliñ ci àddi yooyu dañ fa yóbbu yéen ñëpp li ngeen yor ñu ngi koy jéglu du la ko gënal waaye lii lépp sëñ bi lañ ci jublu mooy mënuñoo fay naar bi xoromam waaye ñu yëg ni bu xorom xorom safee rek naar bi la loolu rek lañ ci jublu ñu bëgg nag képp ku nekk tane fii dañoo bëgg mu doon loo xam ni saa bu ñu fi dajee dañu fi dajale addi yoo xam ndax dañoo waroon waaye jataay bi du yomb saa bu ñu fi jógee te duñu yomb moo tax ñu bëgg bu ñu fi dajee kenn ku ci nekk liggéey sëñ Tuubaa jooju ju mu wax ñun saa bu ñu dajee rek suñu farata la sëriñ bi ñu ngi la koy ñaan di la ci fasali lépp rek loolu nga ko wax ni nga ko bëgg nga amee ko noonu waaw ca sun daara ji la jëm ah sëriñ la mel ne njëkk a joxe waaw nam ñu ko waxee woon daaw daal ñun ci daara ja la ñuy liggéeyal daara yi alxuraan ja mo lañ fas yéene liggéeyal sant nañ bu wër waaw loolu rek lañ jublu xorom ci dal bu safé mun ñoo fay naat bi xoromam waaye ñu xamni naar naat bi moo safa rek waaw suñu jariñ la de ndax sëriñ bi ne jëf ci leeral moy dañ da wër di laaj bis bi bu masaa ñëw dañ ñuy al auto ñuy wër fa nañu dem yalla dogal ren am ñu ne ci bir mbolam mi am nañ seeni fasi bop waaye fas yi biñ ko amee ba noppi taxul ñu dem fenn nit nag dañoo toog ñëpp diñ fekk si diñ jox kon nag loolu moom tawfeexu sëriñ bi la dañoo yaakaar ni sax bu ñu amee fas yi dañuy dañuy wër di laaj di demati waaye fas yi ñëw ba noppi ñu toogati nag ñu ñu woo diñ joxit nag moom gën na fee neexati waaw sëñ jaay xasaayit bismillah waa mbur ñi dañ faa xëy gaaw leen mu ñëw